du président oui vive Macron notre président ah. c'est un lapsus. Amadou Ba ngi def na la bërki démb. kii du def na ko baal ko ko man di ma ko baal dama jub. Macron n'est pas mon président c'est Macky Sall mon président. Ah, le Sénégal n'est pas la France mais écoute euh, ci remaniement wu euh, président wu France bi dañoo nommé euh, Sibeth Ndiaye def ko porte-parole bu gouvernement bi. waaw mais finalement comme que dañ koy Twitter mu dem posté j'aime bien son tweet dafa c'est très simple mu ne vous informe et explique ce qui votre quotidien c'est mon nouveau job euh, merci à Emmanuel Macron loolu la Sibeth wax Sibeth euh, Ndiaye euh, gannaaw ba mu fii ci Dakar 37 ans après tey jii la lu mën nañu ko jàppee jëloon moom Sibeth Ndiaye ñu ngi ko gën ràññee nag ci juste après bi Emmanuel Macron nekkee président France ndaxte dañu benn documentaire bu téléphone tegoon bi nga xamante ni dañ ci gisoon dans les coulisses d'une victoire ci lañ ko gën a parce que immersion la def moom préparé discours yi foofu la ko gën a fësale fësale moom euh, Sibeth Ndiaye juddoo fii ci dakaar moom euh, nga xamante ni euh, voilà di làkk joola turam bi tamit d'ailleurs dafa am lu muy signifié moom la ñuy wax ni moom la mooy signifié qui a gagné beaucoup de combats mooy Sibeth ah. quelqu'un qui a gagné beaucoup de combats loolu la ñuy loolu lay loolu tekki moom la ñu firndeel ni neex la ci ñu bari nit ku ñuul koo xamante ni fii la juddoo nekk ci gouvernement français mais nag li fàttali que ni moom il il elle travaille la France waaw certes elle est origine sénégalaise d'origine sénégalaise ak yooyu mais elle travaille pour la France c'est important mais nag toujours. oui mais c'est c'est cool pourquoi on en parle c'est une réponse à la France raciste. <laughs> oui pour wane ni toujours il y des intellectuels <laughs> am na ay intellectuels yi nga xamante ni ñu ngi fii jàngee fii juddoo fii dem foofu mën leen mën leen seetlu pourquoi pas que ni monde mooy doxee am na ku rek man kooku daf may jooyloo saa yu gilets jaunes yi génnee rek Joseph Ndiaye la tudd xaw ma Sarlu ñu puudar Charles boobu xaw ma Joseph Mbaye ab tubaab la nag cent eh, eh, eh, pour problème bi gilet jaune yi maîtriser na ko man même bu ma nekkul sama kër dañ na ma sa xarit baa ngi génn doo fekk dégguma lakk sama yoon nekkul ci problème bu gilet jaune yi comme ñoom ñooy yaanamaaru France hmm. man ni rek laa koy xoole ma ngay lakk ay tubaab te mbay la sant ab tubaab la de. c'est comme quoi euh, nationalité amul weex amul ñuul. ku nekk ak fi nga nekk defoon na fi bës récemment ak. puudar bi euh, parfois sax ñeneen ñi kii xanaa parfois du ñu xool euh, black africain yi nga xamante ni dañuy ñëw ñi nga xam ne ñu ñuul. dañuy ñëw ci plateau yi ñu leen di xool que ni bokkuñoo ak ñeneen ñi nit ñu weex ñi. ñu leen di poudre euh, bu ils sont grandi ils ont grandi là-bas donc c'est des français Sibeth Ndiaye en tout cas mm-hmm. euh, pourquoi nous parlons d'elle et puis bu ngeen seetloo depuis qu'on l'a nommé. Mm-hmm. Euh, bi mu ak Macron ni laa a wax astafurlah bi mu ànd ak Macron ba à mm-hmm. chaque fois qu'il a un truc sur elle on parle d'elle. moom Sibeth Ndiaye def na fi buzz ak benn taxi bu mu sol astafurlah benn manteau bu jaune ak yére bu ñuul elle a géré équipe communication bu Macron garde rapproché euh, bu Macron euh, papam ak yaayam euh, Sénégal la ñu fekk baax Fara Ndiaye son papa par exemple ouais. il fut député uh-huh. moo nekkoon numéro 2 bu mm-hmm. parti démocratique bu Sénégal avant boobu mu jaar parti PAI voilà nekkoon koo xamante ni ku engagé ci ci ci politique mi ngi ci livre Abdou Diouf bi mm-hmm. Fara Ndiaye Abdou Diouf wax ci relation bi nga xam ne am na ko ak moom surtout boo nee na donte bokkuñu woon parce que conviction politique bokkuñu woon camp conviction politique mais nekkoon ci ñoo xamante ñoom doon discuter bu baax a baax ci politique gu Sénégal surtout situation yi ni mu doon mel ci dans les années 60 70 80. moom gannaaw ba fa jógee nekk euh, numéro 2 parti démocratique ah sénégalais. Ah boo xamante ni oui son son donc moom euh, euh, ci famille koo xam ñu ñoo xam dañu doon yëngatu ci wàllu dirigeant africain ci politique moom ci la ci la jógee yaayam di Mireille Mireille Ndiaye nga xamante ni moom moo moo bi Abdoulaye Wade ci 2000 di prêter serment moom moo ko moo ko doon moo ko doon assister pour mu prêter. prêter serment donc loolu nekk na li nga xamante ni maire bu watu bi. waay euh, mhm. moo nekkoon décédé décédé moo jiite woon conseil constitutionnel. effectivement moo jiite woon conseil constitutionnel. donc euh, voilà pour pour Macron pour euh, actuellement liñ ko liñ ko fal nii je pense que suite logique la boo gisee fi mu jaar donte bi mu yàgg bi mu duggee ci politique bi lool lool yàggul <coughs> mais suite logique la fu mu jaar nekkoon ci ñi nga xam ne mooy attaché de presse jërewoon li nga xamante ne aussi affaire association environnement loo xamante ne surtout wàllu communication la je pense bien pour mu nekk porte-parole gouvernement suite logique la en tout cas. di ko souhaiter bonne chance et bonne continuation. mais voilà merci en tout cas euh, Mamadou Ndiaye euh, euh, voilà euh, Sibeth boo ko gisee sa xel day dem tamit ci Ramayad. Euh, oui euh, ñun africain dañoo mën a far ak sunu ay euh, su ay mbokk bon après souvent on oublie c'est des Français comme disait l'autre merci pour la France oui tu voulais après aussi ça montre que les Sénégalais sont bien intégrés en France parce que ngay gis Sarkozy amoon na yar rama kii ñëw am en fait par rapport ak yeneen nationalité africaine yi nga xamante ni moo am les Sénégalais sont enfin d'origine bëri na lu ñuy nekk ci gouvernement français <laughs> d'origine faut préciser hein <laughs> daa nekk intéressé il est il est quelle heure 10h35 bon on continue on a encore le temps.